di leen ndokkeel ci weeru tëdd wi jàll di ñaan yàlla mu nangul ñu jaamu yàlla yépp dañ fekke waat ko ay ati at te ànd ak jàmm ak salaam ak bir di nuyu ak di ziyaare bi di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te may ko wér ak kàttan bam mu eggale naalam yépp dañ ànd kook moom mbokki jullit yi tey dañoo dellusiwaat di laayante biir ak di fàttalente ci mbiru diine ji rawatina ci digle lu baax ak tere safaan ba ndax sunu borom ci suratu ali imran ci laay téeméer ak ñeent maa ngi fay wax naan waltakum minkum ummatun yad'uuna ila alxayr wa ya'muruuna bilma'ruufi wa yanhawna wa ulaa'ika humul muflixuun mu wax ne munta ñàkk ci biir jullit yi ñu sàkk mbooloo moo xamante ni lañ leen di féetale muy seenab liggéey mooy dañuy woote jëme ci aw yiw dañuy woote jëme ci aw yiw waaye itam ñuy digle lu baax di tere safaan ba mu ne ñooñee di taxaw ca loole nag ak ña leen ko sant ñooy way texe ya mu waxaat ci beneen laaya ci suuratul maa'ida laaya fanweer ak juróom yaa ayuha alladina aamanu taqu llaha wabtagu ilayhi alwasilata wa jaahidu fi sabilihi laallakum tuflixuun mu ne ay yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla maa ngi leen di digal ngeen ragal yàlla te mooy topp ndigal ak di moytandiku ay tere waaye maa ngi leen di digal lépp lu leen di mën a yeggale ci ngërëmal yàlla itam ngeen cey farlu rawatina ci jaamu ko ak ñaan ko ak lépp luy tax ngeen jege yàlla maa ngi leen digal itam ngeen di jihaat ci yoonu yàlla bu ngeen defee ndigal yooyu yépp nag te mooy ragal yàlla ak tënku ci lu baax ak jaamu yàlla ak di ñaan yàlla rekk ak di jihaat ci yoon yàlla la'allakum tuflihun ndax yàlla ngeen mën a am ak texe kon nag ñaari aay yu nga xam ne benn bi mu ngi jeexe ci wa ulaika humul muflixuun beneen bi jeexe ci laallakum tuflixuun yi ci borom bi tabaraka wa taala di digle yépp nee na ku ca taxaw ak texe la lay jural texe googu nag yàlla nañu ko borom bi tabaraka wa taala defal te nee na nag di digle lu baax ak di tere safaan ba bokk na ca lay maye texe googu tudd na ko ci biir aaya bu njëkk boobu ñu xam ne kon digle lu baax ak tere lu bon ak nos ko ak mbooloo mu jug di ca di ko saytu bokk na ci warugar yi nga xamante ni jamono ju nekk lislaam daf koy sàkku di bëgguñu ko ca taxawe ndax buñ dee seet xeetu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam alquran dafa saxal ne moo gën ci xeet yi waaye ba mu waxee moo gën ci xeet yi itam mu mel ne dafa wax la waral ñu gën ci xeet yi te mooy dañuy taxaw ci digle lu baax di tere lu bon kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil maarufi wa tanhawna mun kër mu mel ne kon lay waral ñu gën mooy loolu ñuy taxaw ci loolu ñuy taxaw ci di digle lu baax ak di tere lu bon li feek ña nga fa rek ngëneel googu di feeñ ci ñoom waaye suñ ko defut itam nag ngëneel googu dafay daal di toxu ndax seen ngëneel googu daf ko tënk ci taxaw gi xeet wi taxaw ci digle lu baax ak di tere lu bon loolu mag nga ca surtu Al Imran laaye téeméer ak fukk te digle lu baax ak tere lu bon tam sunu borom tabaraka wa fonk na ko ba boole ko ca melokaan yu baax yi nga xamante ni jullit yu góor yu gëm ya danañ ko melowoo waaye jullit yu jigéen yu gëm yàlla itam danañ ko melowoo loolu moo ngi ko wax ci laaye juróom-ñaar fukk ak benn ci suuratu tawba wal muminuuna wal muminaatu baaduhumu awliyaau baad yamuruuna bilmaarufi wa yanhawna anil munkari wa yuqimuuna solaata wa yu'tuuna zakaata wa yutiicuuna allaha wa rasulahu ulaika sa yarhamuhum inna allaha azizun hakim mu ne jullit yi nga xamante ni dañoo gëm yàlla tey ay góor ak ña gëm yàlla tey ay jigéen dañuy jàppalante ba'duhum awliyaa ba'din dañuy jàppalante ba mën a taxaw ci lii may bëgg a wax te mooy digle lu baax ak tere lu bon ak di taxawal julli ak di natt asaka ak di topp yàlla ak yónnentaam ba mu ne bu li feeg ña nga ca loolee rek am nañ yaakaar di yaakaar yërmande yàlla ëllëg yonente bi aleyhi salaatu wasalaam itam wax ci njariñ li nga xamante ni digle lu baax am na ko ak tere safaan ba jaraloo na ko sax muy giñ de walladi nafsi bi yadihi yonent yàlla muhammad aleyhi salaatu wasalaam mooy giñ ne mi ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne bakkanam mi ngi ci loxoom su ko neexee dundal ko su ko neexee jële ko fi la muy giñ mooy leen la ta'murunna bil ma'rufi wala tanhawunna anil munkar nee na mënu leen a ñàkk taxaw di digle lu baax mënu leen ñàkk taxaw di tere lu bon bu ngeen ko defut aw la yusikanna allahu an yunzila aleykum iqaaban summa tad'uunahu fala yastajibu lakum nee na su ngeen du digle lu baax di tere lu bon yàlla mën naa wàcc ci yéen mbugal moo xamante ni dana tartar goo xam ne dangeen tàllal loxo di ñaan yàlla teg du leen nangul moo mel ne kon ku bëgg yàlla fegal la am mbugalam da taxaw ci yooyu mooy di digle lu baax soo gisee lu baax nga koy digle soo gisee safaan ba itam nga koy tere waaye nag ku yàlla nattoo itam ba nangu taxaw ci yooyu itam nag mbugalam yàlla wala yaasu billaahi mën naa wàcc ci yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxaat na itam la ta'murunna bil maarufi wala tanhawunna anil munkari aw la yusallitanna allahu aleykum siraarakum fa yad'u xiyaarukum fala yustajaabu lahum nee mun leen a ñàkk taxaw ci di digle lu baax mënu leen a ñàkk a taxaw ci tere lu bon su ngeen ko defut yàlla mën naa xiirtal ci yéen ña gën a yées ci ay jikko ci yéen ñu yilif leen di def ci seen kaw lu leen neex te du ngeen ca man dara te bu boobaa ñi gën ci yéen sax mën nañoo tàllal seen loxo di ma ñaan man yàlla te duma leen nangul loolu nag ku ko dégg xam ne eh, digle lu baax am na solo lool waaye tere safaan itam am na solo lool digle lu baax lu baax mooy lan mooy lépp loo xamante ni sariyan nangu na ne lu baax la di su ko bàyyeeg nit ñi waaye lu sariyan bopp sunu borom bi wax ne lu baax la te saxal ko moo xam muy ak jaamu yàlla gu ñuy wax wala gu ñuy jëf gu feeñ wala gu nëbb loolee lañ tudde lu baax safaan ba itam mooy lépp loo xamante ni mooy lu ñaaw mooy loo xam ne sariyan nanguwul ne lu baax la te tere ko محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول sunu la ilaha illallah ashhadu محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم kon lu baax euh, sariyan lañ koy laaj ndax mooy xamle ne lii lu baax la lu bon itam sariyan lañ koy laaj mooy xamle ne lii lu baax la waaye duñ ko bàyyeeg nit ñi ndax nit ñi mën nañoo jàppee lu baax te sariyan nanguwut ne loola lu baax la mën nañoo jàppee mbir itam lu bon te sariyan nanguwut ne loola lu bon la kon sariyan la ñuy laaj lan mooy lu baax ñu digle ko moom lañuy laaj itam lan mooy lu bon ngir ñu mën koo tere digle lu baax nag ak tere lu bon atte mooy fardu kifaaya la bu ca ñenn ñi taxawee wuute ca ñi ca des mu wàcc ñëpp waaye bu ca kenn taxawut nag mbooloo mépp dañuy daal di amaloo bàkkaar moo tax borom bi ne wal takun minkum ummatun yad'una ilal xayri mënu leen a ñàkk a sàkk am mbooloo moo xam ne loolu mooy seen liggéey mooy di digle lu baax di tere lu bon waaye mu jiital ci itam nag nee na woote jëme ci aw yiw buñ noppee itam nag lépp loo xamante ni sariya nee lu baax la ñu digle ko lépp lum ne lu bon lañu mooy tondikuloo nit ñi loola woote googu ñuy woote jëme ci lu baax nag mooy dañ leen di woo jëme leen ci ponk lislaam ya gën a mag ba noppi bañ tënku ca dañ leen di woo jëme leen ci ñuy julli ca waxtoom di natt asaka suñ amee alal juñ ko natte di aji màkka suñ ko mënee di woor suñ amul ngant di def lu baax ci ñaari wayjur di jokk ak bokk buñ defee yu mag yooyu ba noppi nag lépp loo xamante ni nag lu baax la ñu koy digle lu bon itam ñu koy tere digle lu baax ak te tere lu bon nag am na ay sart sart ba ci njëkk nag mooy kiy digle lu baax ak kiy tere lu bon war naa xam lan mooy lu baax ak lan mooy lu bon ndax euh, loo xamut waroo koo digle loo xamut tam waroo ko mën a tere ndax borom bi tabaraka wa taala ci suratul isra laay fanweer ak juróom benn dafay tere nit ki muy xeñtu wala muy topp lu mu xamul wala taqfu ma laysa laka bi ilmun kon nit ki bala muy tere dara wala mu koy digle na nekk lu mu xam mooy sart bi njëkk sartam ñaareel ba kam yi digal itam na ko wóor ne kooka la koy digal da caa nekkutoon ki muy tere itam na ko wóor ne moom mi koy tere na xam ne kam yi tere da doon jëf loola waaye loo xamante nag wóoru la waxam wóor na ne waajaa ngi koy jëf tamuy lu baax jëru koo digal loo xam itam wóor na lu bon la waaye kii nga ko bëgg a tere defu ko woon itam jëru nga koy tere ndax euh, nit di su ko digal te di ko teg rek ak ba koy tere te di ko teg ci ay njort ak demlante ak dikkalante ndax njorti kese rek sunu borom daf koo tere woon ci yaa ayyuha allazina amanu ijtanibu kathiran min addan inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu balaay ja jeex ci suuratul xujuraat laay fukk ak ñaar kon ki ngay digal na fekk defutoon la nga koy doon digal ci lu baax ka ngay tere itam na fekk mu doon def la nga ko doon tere waaye boo gisee nit koo xamante ni danga koo gis rek euh, bëgg koo digal ne ko demal julli ji ah loolu ak gaawantoo nga ca ndax da koo ko war a laaj ba xam ndax julli nga ba pare wala boog naan ko demal tee ngay julli si ci jàkka ji loola am na lu ko doon jiitu mooy war ngaa seet ba xam ndax dafa jullee ci jeneen jàkka wala déet moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam balam daataa digal kenn wala mu koy tere dara daf ko daa jiital ab laaj ba xam luy taxawaayam moom kookee muy digal wala mu koy tere ca loola moo tax ba mu gisee koo xamante ni moom yonent bi aleyhi salaatu dafa dugg ci biir jàkka ji ñëw rek na faax toog bañ a julli yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daf koo laaj ne ko ndax julli nga mu ne ko déedéet mu ne ko jógal julli ñaari ràkka ngir nuyoo ko jàkka ji kon lañuy bañ rek mu jékki-jékki rek di ko digal te xamul ba xam la koy digal ma nga ko doon defam déet wala mu koy tere te xamul ba ko doon tere ma nga ci woon wala déet ñetteel ba kiy digle lu baax ak kuy tere lu bon war nay ànd ak ak teey ak jëflanteeg doomu aadama itam ci nooy ndax yonente bi alei salatu wasalaam nee na woon yàlla dana joxe ci ak jëflante boo xam ne dañ koo teg ci ak nooy ak woyofal loo xam ne du ko du ko joxe ci jëflante boo xam ne ci doole lañ koy teg mu waxaat feneen tam ne mu tax mu tax ne inna allaha yuti ala rifqi ma la mu waxoon itam maa kaana rifqu fi sayin illa zaana wa ma yunzau min sayin illa saana nee ndànk ak teey lum dugg daf koy taaral waaye jëfandikoo doole nag lum dugg itam daf koy ñaawal wala boog teey luñ ko noccee loolee def daal di mujj ñaaw moo tax nag nit ki da koy digal lu baax di ko tere lu ban waaye bu ko ca forcé nag ndax jub moom mi ngi ci loxol yàlla tabaraka wa taala laysa alayka hudaahum walakin allah yahdi man yasa loolu la sunu borom waxoon yonent bi ne ko njub moom ci sama loxo la nekk ñeenteelu sàrt ba ci digle lu baax ak tere lu bon yow miy digle lu baax yow wala ngay tere lu bon la nga ko bëgg a wottee bu mu nekk ay wu ëpp wa fa nekkoon ndax loolu itam ba tey njuumte lay daal doon kon war nga koo méngale ndax boroom bi tabaraka wa taala dafa tere woon julli ne leen bu leen ŋàññi bu leen saaga yàlla yéefar yi ndax bu ngeen ŋàññee wala ngeen saaga wala ngeen ay ayibal yàlla yéefar yi yéefar ya mën nañoo mer ba fayee ko ci yàlla mu dëgg moom yi te boobaa dangeen ci am responsabilité yéen jullit yi ndax yéen saaga lañ jàppe ñoom ay yàlla te dëgg la sax du ay yàlla waaye ñuy fay ngir seen mer bay ay ayibal yàlla mu dëgg moomu te loolu kon dangeen ci am aw naqar te loolaa gën a rëy wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbu llaha adduwan bi xayri ilmin ca suratul anaam laaya téeméer ak juróom-ñett juróomeel ba te mooy ba ca mujj mooy yow miy digle wala yow miy tere la ngay digle na nga am kàttan ci boo ko diglee ñu jëf ko wala la ngay tere itam na nga am kàttan ci soo ko teree ñu bàyyi ko waaye bu fekkente ni amoo baat ci biir mbooloo mi kenn topp la kooku itam nag wax dëgg war ngaa bàyyee baat ba nag ca ka nga xam ne bu waxee bu diglee ñu ñu topp ndigalam su teree itam ñu bàyyi lam doon tere ndax loolu kon bëgg nga lu baax waaye nag danga amut baat ci sa biiru biiru xeet kon li nga xamante ni moom lañ tëje waxtaan wi mooy tënk bu ñuy tënk xutbab al mu ngi wax ne uskurullaha fa raabihu man sakara nee na mi ngi ñuy digal ñun ñëpp ñu sant yàlla ndax nee na kay am bénéfice mooy ka saxoo di sant yàlla te di ko jëf ngir jëmmi yàlla wasxalu alsinatakum bi dikrihi fa saidu man dakara nee na ngeen di nañuy fob suñ làmmiñ yépp di ko soxlaal ci tudd yàlla ak di ko fàttaliku ndax nee na kay taxe ëllëg mooy ka bàyyi woon xel yàlla tabaraka wa taala ci àdduna waqsiduhu fi talabil xawaaiji fa huwa karimun layu yuxayibu man qasada nee na bu ngeen dee sàkko kuy faj seeni aajo itam bu leen ko sàkkoo fenn wala ci kenn ku dul yàlla mi nga xamante ni ku ko yaakaar du sooyal sa yaakaar wattaqu yowman yuqazu fii bin nawaasi wal aqdaam nee na nañuy waajal bis pénc ba nga xamante ni ëllëg dañuy diri way tooñkat ya ci seen xar kanam ya ak seen jiya ak ca seen tànk ya ngir mbugal mu metti nee na bis boobee nañ koy waajal te nañ koy waajale ci àdduna ci jëf-jëf ju baax wala taqulu dahaba ramadaanu fa tastaxillu fiala alxaraam bu ñu wax ne weeru koor jàll na rek ba tax lu ñu neex ñu def ci lu araam déedéet weeru koor ab jàngukaay la woon boo xam da nga cey tàggate ci lu baax ba bu weeru koor yu jàllee nga yóbbaloo ko ba weeru koor di del siwaat wastaqbilu hada sahra bi maa yurdil malik al nee na weeru sawaal bii nañ ko teertoo ci jëf joo xam ne dafay gërëm loo yàlla bi nga xamante ne mooy buur ba te bind ñëpp wa taqarrabu ilayhi bi sadaqati wal infaq nee na itam nañuy jege jege ñu yàlla ci saraxe ak fab sunu alal di ko jëf ci lu neex yàlla mu wax ci xutbam ñaareel bi ne weeru koor ku ko woor ba mu jeex ngir jëm yàlla nga toftal ca juróom benn fan ci weeru sawaal muy weeru korite te def ko ngir jëm yàlla nga woor ko nee na yaa ngi mel ne yonent bi aleyhi salaatu nee na yaa ngi mel ne ku wóor diirab jamono man saama ramadaana wa atbaahu sittan min sawadin kaana kaman saama dëhra nee na mi ngi leen di moytandikoo jamono ji ndax jamono jo loo xam ne yiw néew na fi waaye itam balaa yi bari na fi te ku ci nekk itam ñi ëpp ci nit ñi dañuy soxla woo luy defar seen àdduna fàtte seen àllaaxira te loolu amul solo waxdaru zamanakum hada fa innahu zamanun qalla xayru wa kasura balaahu wastaxala kullun minna bi talabi dunyaahu kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu nangu ñu suñu jaamu yàlla yépp te bàyyi ñu fi sëriñ may ko fan wu gudd ak wér ba mu àggale mboolem naalam yi te ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 ashadu anna muhammad rasulullah ashadu anna muhammad rasulullah الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وحظم هذا الشهر حيث جعله فاتحا لشهور الحج المبرور احمده سبحانه وتعالى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ilaa yawmil baaxi wan nusuur amma baadu fa yaa ibaadallah uskuru allaha farraabixu man shakara washghaluu alsinatakum bi dikrih fassaciidu man dakara waqsiduuhu fi talabi alxawaaiji fa innahu karimun laa yuxayibu man qasada wattaquu yowman yuuxadu fiihi binnawaasi wal aqdaam ولا تقولوا ذهب رمضان فتستحلوا فعل الحرام واستقبلوا هذا الشهر بما يرضي الملك الخلاق وتقربوا إليه بالصدقة والإنفاق وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وفي الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس في أزليته فلا عين تراه وقسم الأرزاق بين عباده هذا منعه وهذا أعطاه وهذا أصعده وهذا أشقاه أحمده على ما أهطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أنبياه وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه أما بعد فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه ولازموا طاعته ففي طاعته رضاه وآمركم بتعجيل التوبة قبل أن يبلغ الأجل منتهى واحذروا زمانكم هذا فإنه زمان قل خيره وكثر بلاه واشتغل كل منا بطلب دنياه ووا أسفاه وقلة حيلتاه في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah wa fil hadiisi irhamu salaasatan ganiya qawmin iftaqara wa aziiza qawmin dhalla wa faqiihan tal'abu bihi al-juhhaal يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi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 allahu akbar sami allah liman hamida rabbana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 illaa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu llahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyaabahum thumma inna 'alayna hisaabahum allah akbar allah سمع الله لمن حبنا asalaamaaleykum asalaam